bàyyi Cheikh Abdoulaye Lat borom belal moo fay man naa doxawee waay manal waay sëñ Cheikh na baala ma dëggen dama bu saa taxawee ana soppi mbay Serigne Saliou Mbacké moo fay man loxo ca kaw ni kër gi de ku sopp Serigne Saliou jugul taxaw ni kër gi de ku sopp Serigne Saliou jugul taxaw ni kër gi de dem lay wax ji di dem ballag maaram yaa fa mën ana soppe may si xam lay ma këbaram ji dooram ndox bu saa taxawee Serigne Fallou baax moo nu yàlla ndeysaan ana soppe Cheikh Ibra Fall loxo ca kaw ni saa bu kër gi demee ku sopp Cheikh Ibra Fall jógolu nu magal ni saa bu kër gi demee ana soppe Serigne Fallou Mbacké loxo ca kaw ni saa bu kër gi demee ku ma soppal Alaaji Fallou loxo ca kaw ni saa bu kër gi demee wax ji di benn ballak maaram yaa fa ca kaw nu magal jooja waay ni saabu kër gi de dem ana soppi sëriñ Fallu loxo ca kaw ni saabu kër gi de dem ku sopp sëriñ Fallu Mbakke loxo ca kaw saabu kër gi de dem ana soppi sëriñ Fallu Mbakke loxo ca kaw saabu kër gi de dem bilaay wax ji di benn balak maaram yaa fa